gis nga li xew nii Sénégal dafa wane ne nous avons un grand homme d'État nous avons un grand président de la République parce que di ngay gis ko nga xam ne bés bu nekk mu tooñ la dama déglu sëñ Abdoul Aziz Sy mu ne pour nga nekk sang bu lay ngay jégale mais bu dee bu saa yu la tooñee nga fayu saa yu ñu la tooñee nga fayu kañ nekk sang bu ñu fàtte ne Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire mm-hmm. contrôle judiciaire mooy maanaam lu bëri dañ la cee tënk bañ ko ko defee sax jàpp naa ne ci la gën a yokk ay activité am ci la wootee xare ci la gatsa gatsa ci la ci la ci la ci mais malgré tout le président rest zen kon mënta yem ak moom man sama conviction xam mooy lan si les rôles étaient changés si jamais Ousmane Sonko était président et que Macky Sall mi nekk opposant tëj na ko bu yàgg parce que bokkuñu tempérament lu président est très calme euh, je vous le Sénégal n'a pas commencé en 2012. Mm -hmm. euh, le président Mamadou Dia a été en prison pour moins que ça du régime de Senghor Abdoulaye Wade a été en prison pour moins que ça au temps de Diouf li nga wax léegi ci gazé beeg dàq ji beeg jàpp bi du fi bees man je suis de l'AFP il est arrivé plusieurs fois ñu dem manifestation ñu jàpp président Niass yóbbu commissariat central wala ñu yóbbu commissariat Rebeuss wala ñu yóbbu commissariat Plateau donc du du fi du bees bés boo jëlee sa responsabilité. image quoi ñu gis maître teg ci civière. yow gis nga image bu nga xamante ne président Niass ñu ngi doon sàcc ay ay ay lunettes am en pleine marche en pleine marche ñu jël ay lunettes am en pleine marche ñu ko doon jël ñu ngi woon ci dispositif sécuritaire bi ñun on les a identifiés après. parce naka ba le commissaire bi yoroon le dispositif moo jël lunette yi ne waa ji delloo lunette jàmbur parce que comme lunette yi bras yi or la woon il en a profité man mii j'ai du téléphone ci genre yooyu. pour pour vous dire que du lu bees te nga dem yow da nga braver interdiction xam nga la la cay fekk c'est-à-dire sànq Assane dafa wax lu am solo yow nga ne ko la constitution la loi dafa am loo xam ne c'est le domaine de la loi mooy les grands boulevards dafa am loo xam ne c'est le domaine du règlement tey mbirum jaaral fii ak bul jaar fii le président Macky buy génn këram di dem mais itinéraire am du moo koy tànn il y a des gens dédiés à ça ñooñu ñooy teg alkaati yi ci yoon bi ñoo naan fii lay jàdd du jàdd fii et cetera mais de la même manière est-ce que vous pensez ni on peut l'État peut tëj euh, ne ni ne ko saa yi jaaral fu la neex jaaral buntu université nga li fa nekk. buub xaaral mais est-ce defoon nga yaakaar yàq yi est que est-ce que dina ci nga les gens ne sont pas des nains en politique dama lay wax ñi yore sécurité bi dañ ko jàng xam ko mën ko pratiquer ko. Mhm. un préfet du cuune il a le renseignement il a les éléments. saay bu fii boo fa taaloon boo fi sotti woon ah, euh, essence wala pétrole kenn jógee fële bëgg fi tox buy egsi nga koy dànkaafu parce que bu koy taal ñuy dee mm-hmm. est-ce que les gens dañu waroon def nii ñu buub étudiants yi ñu ànd ak moom romb marché te leen buub li fa ne dugg kër sëriñ ba rajaxe la fa ne mais attendez attendez la preuve bi ko gars yi jëlee dugal ci oto bi mais en dix minutes xaw ma cinq minutes yegg na mm-hmm. président Macky fu mu jaar du ci connaître ñun ñi ñëpp ku ci dem ville fay jaar du corniche bi moo gën a gaaw di c'est le chemin le plus rapide pour aller au tribunal fi mu dëkk c'est le chemin le plus rapide pour aller au tribunal mais mënoon na yow tout le temps tu braves l'autorité dañ la convoqué convoqué wu ñu cinquante mille personnes ah. la salle wër na la wër yàlla ne salle bi du jël plus de cent wala deux cent personnes tu convoques tout le monde est-ce que police dafay tëdd nii bàyyi gars yi ñëw dugg ci te kër góor yi